journée culturelle, cher Ahmadou Bamba, l'antenne hebdomadaire. yeah. rahmatullahi taala wa barakaatuhu fukki fan ak juróom fukki fan ak juróom benn fukki fan ak juróom ñaar ci weeru juillet atum 2016 daara Hizbut Tarqiyyah dina amal ay bëccëg yu mag ñu di ko wax journée culturelle yoo xam ni ñu ngi ko dëppee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ngir jëm ci nag seen télé Al Mouridiyyah TV bëgg na jëfandikoo bu baax a baax ci plage de communication boobu ba xamale leen ak journée culturelle yi laataa ñu ciy dem loolu moo tax ba ñu activités yi nga xam ne activité culturelle la woon ñu daan ko defee ci sunu bir daara Hizbut-Tarqiyyah bi nek Dakar dañ koy génne aljuma bi wessu ben tali la won aljuma tay ben fan ci wéru avril atum 2016 ñu ngi fi ci parcel fekk nañ fi nak ben fédération bo xamni fan wéru daayira la ak juroom ben ñom ñoo dalal daara hizbut tarxiya ngir dundé fi guddi gi nga xamni activité culture la ak ci walum jaamu yàlla ngir waccay journée culturelle Cheikh ahmed Bamba yoy nga xamni dinañ ko fi Dakar ñu ànd xamale len ak li nga xam ne moom moo fi nekk. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di ziar bu baax di ñaan Cheikh Sidou Mokhtar Mbacké yàlla na ko fi yàggal yàlla yàggal te wér ci liggéey Sëñ Tuubaa bi mu jiite lépp fépp fu mu ko bëgg a yeggale mu yeggale ko fa li ma laaj si Ablaye maanaam mooy euh, li nga xam ne Hizbut Tarqiyyah ngi koy dox nga xam ne maanaam dañoo am pas-pasu ndaje moo xam ne mii ñu ngi koy waajal ci suñu kanam ginnaaw koor gi léegi nag maanaam mu am ay ay ay ndaje yuñ koy jiitale ngir daara yi génn daay guddi àjjuma yi nga xam ne ñu ngi ko daan def ci suñu daara fii ci dakaar ñu di ko génn di ko yóbbu ci quartier yi jëkke woon nañ ko bii passé usine benn tali gi yoon ñu indi ko parcelle ñu xam leen ne nag maanaam daayira parcelle yëpp contacté nañ leen ñoom ñëpp teew nañu muy góor di jigéen imam yi ñoom ñëpp teew nañu responsable yi murit yi fi nekk ak mboolem kilifa diine yi fi ñëpp teew nañu kon sant nañ bu baax ñaari fan ñetti fan a ngi nii ñu ngi war suñu oto di wër dëkk bi fépp foo xam ne fii maanaam kilifa diine nekk na fa wala kilifa imam wala magum murit dem nañ ci yow waxtaan ak yow. daayira yi ñoom ñëpp contacté nañ leen d'ailleurs bi ñu ñëwee ba tàmbali ñoom ñëpp may nañ leen ñu barkeelu euh, ci njàng mi ñaari daayira muy daayira mañ euh, maxu nóoréy ni ak maxsadu siddiqi ñoom ñëpp tàmbali nañu lu jiitu suñu kuréel bu mag bi di tàmbali kon maanaam organisation bi daal maanaam Sëñ Tuubaa def na mu kawe suñu jox mboolem ñu waa parcelle am nañ ko ñun lépp luñ ci war a jëf rek jëf nañ ci ba jëfit su ci wàllu waajtaayu bis beeg baas yeeg sonorisation beeg maanaam waajtaayu collation beeg café geeg lépp daal matale na guddi gi jot moom soxna yeeg ñëpp ak góor ñeeg ñëpp mobilisé wu ñëw kon daal maanaam li ci nekk lépp mënuñu ko wax ñu ngi sant ñëpp di ñaam sëñ Tuubaa yeggal lañ ci bis boobu nga xam ne euh, buñ ci yeggee jàmm lu bëri dina leer bu soobi sëñ Tuubaa. ñu ngi ma fi wax léegi benn fédération bu ëmb daare yi nekk ci parcelle bi bëggoon naa xam fédération bi ñaata daayira la ak nu mu tëddee. ah bi ni mu tëddee ñu ngi ay mbokk taalibe la yoo xam ne dañoo amoon yëg-yëgu boole murid yi nekk parcelle. ñu waxtaan ci magi taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo nekk parcelle bokk na ca sëriñ Mouhamadou Gueye ak euh, Baye Cissé Mouride ak yenn ci magi taalibe yi fi nekk. ñu ne ñu lu mel noonu kat ngir yëkkati ko faaw am ci ndigalu ku tedd ki ci lañ ànd ak mag ñooñu dem ba ci kanamu Cheikh Salih Mbacké mu tuddee ñu Miftahul Xuyro Maram tënk mbooloo mi ci jàng ak jàngal boobaay léegi itam depuis 2006 la woon ci loolu lañ tegu suñ siège mi ngi kër Soxna May mu dem mag foofu la ñuy daje. Hizbut Tarqiyyah di benn ci kuréel bi nga xam ne bokk na ci yoonu murit ñoom tamit naka jekk nekkoon ci xeet yu mel noonu ngeen nekk rek nga xam ni benn ëtt la. ay bunt yu bari rek da ngay wax sar sarxe wax daayira nangam ñëpp benn lañ ndax sëñ Tuubaa la ñuy sàkk moom nag moo am activité yoo xam ne da koy di leen fekk si ba ci seen i koñ seen ay gox loolu noo ko gisee. loolu dañ koy rafetlu doon loo xam ne luñ yàkkamti woon la tey ñaan itam mu doon loo xam ne luñ saxal la ndaxte ku xam maanaam daayira fu mu sosoo rek da xam ne liggéey bi liggéey bu am la ndax wax nañ ne daayira sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom mooy ki wa taxawal tënkoon ko ci itihaad al baay xadim taxaw ni ba tamsik bi diine xawit maanaam doon doon jéem a lëkkale mboolem jullit moom ab jullit la doon waxal kon bu ñu demee ba mboolem Serigne Touba tënku ci genn guum di liggéey Serigne Touba mbokki taalibe yëpp nekk benn ku ci gis sa moroom mu gën la sa bopp kon loolu maanaam tawfeex la ci ñun. ah ñu gis ñu tam taalibe yëpp murit yëpp ak fu ñu mënti nekk dañoo safoo Hizbut Tarqiyyah nga xam ne bu ñu demee màggal ak fu ñu dem ñu ngi dem ci Hizbut Tarqiyyah di leen gëstu njàng mi nga xam ne Hizbut Tarqiyyah lañ ko ci ñoom lañ ko gisee ñu lañ koy sant bu baax a baax. kon buñ diggee fekk suñu ci gox yi di def ak liggéey bu mel nii wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu di ko ànd ak ñoom ak mbégte mu rëy tey ñaan ñu saxal ko. réew mi yëpp koy teewoo boo leen ngeen faral ko fi def daal dina ci am solo trop dinañu dimbali tamit ñun ñi nga xam ne dañuy roy ci yéen daal. pas la rek waaw te te te ñëpp pas-pas ñu mën ànd tey dem yaakaar naa ne jamono ji jot na ci ñëpp ñëpp pas ñu ànd. ngir mën a eh, jagonte ak ak ak noonu Sëriñ Tuubaa yi ndax fi toon Sëriñ Tuubaa moom jot na ci liggéey mu feeñ ci àdduna ci àdduna bés bi day firndeel ñu ñun li ñuy liggéey Sëriñ Tuubaa dëgg la parce que Hizbut Tarqiyyah dem ba am initiative boobu ñëw fii nii pour bokk ak nit ñi li nga xam ne moom lay dund wasaade ko ci mbokk taalibe si gox yi kon defe naa ñun am nañ contentement bi nga xam ne am na fu muy commencé mais amul fu ñu yem saafaray jàngaro yu àddina yépp sëñ Tuubaa la nekk feebar yi àddina feebar sëñ Tuubaa moo ko mën a moo ko mën a faj li àddina di jàmbat saafara bi ci moom la nekk kon ñun amuñu droit toog rek mel ni ñun amuñu lu war a won nit ñi loolu tax ñu ne nañ jóg ndax ku am lu kenn amul danga war a toll nag bu àddina tolloo ba xamatuñ fu jëm nga ne leen jàppaleen ci kii bu boobaa di ngeen am fu ngeen jëm kon loolu moo jur jataay bii loolu dinaa ci ñëw waaye faw ñu wax ci sëriñ bi sëñ Tuubaa moo ne jamaxta lii maa lam yakun wala yakun lil mum li mumkinin yaa man la lahoo kun fayakun loolu kese buñ ci yemoon bis bu ne ñu ñu war a génn wane dara ci moom moo ne sunu borom dajaleel na ko jox ko loo xam ne mosu koo dajaleel kenn te kenn dootu ko am dajaleel nga ma ci ay njëriñ ak i ngénneel ak i may loo xam ne mosoo ko dajaleel kenn te dootu ko dajaleel kenn nga jox ma ndax ñu nag danañ am loolu ba noppi to te yemul foofu da cee boole loolu mu ko dajaleel da ko aar ba nga xam ne yàq mënu ci àgg doomu aadama mënu ko yàq jinne mënu ko yàq seytaane mënu ko yàq loolu lépp boo delloon woon ci ay bindam tey dinga gis muy wax loolu kon li ci des nag mooy moom bu doon liggéey tey liggéey na liggéey ba mat sëkk def ko ni mu ni mu ko war a defee li ci des mooy kenn ku ne ci ñun war cee bay suñu war loolu rek moo ci des waaye sëriñ bi mooy koo xam ne pexey doomu aadama wala ki ñaanu doomu aadama wala yittey doomu aadama mën tax mënul dara ci li mu liggéey ndax moo wax ne man amani min alhida bil xadri fa huwa mubarizun li ahli badr suñ tubaa nee na képp koo xam ne yaa ngi may jëm a song ci samay noonu nee na amoo ak man affaire ahlu badri nga amal affaire amoo man du maag yow sa diggante ak ahlu badri kon kooku mbiram ñag na ko daal di ne ndax lan akramaniillahu bi kawnihim mahi wa laysa lii fi gayrihi min matmahi nee na yàlla def maa terale fu ma nekk ñu ne faak man te soxla wuñ dara lu dul aar ma wax na ko ci xasaayit yi dafa ne ila manazili yanzilul hufaza wa sahma wal awzana wal alfaza nee na samay kër saa bu xasida yi di di jolli malaayka yi di fa wàcc di aar samay ñooñ kon tey koñ bii kaaraange sëñ Tuubaa moom yàgg na fi waaye wàcc na fi tey iblis du ko dégg iblis yu farra shaakiya ila siwaaya baaqiya mu sarra xatti naaqiya wax nee na saa bu iblis déggee samay xasida day day yenu loxoom di daw di yooxu di jàmbatu ji dem waaye du fa toog loolu moom lañu ñu àndi ngir ànd ci ak yéen kon nag sëñ Tuubaa nekku fi ngirub murit sëñ Tuubaa nekku fi ngirub gox sëñ Tuubaa ñépp la fi nekk te saa àddina yëngoo ba nekk ci lëndëm nit ñi xamata fu ñuy jaar jaadu na ñun ñëpp ñu góorgóorlu ba ne leen bismillaay xéewal a ngoo muy sëñ Tuubaa ci loolu lañ nekk nag loolu daal moom mooy liggéey bi te ñun ñëpp ñoo ko war a ànd ndax yonent bi sallallahu dafa wax ni wax nañ ne xaddisul qudsi yi wax na ne bu ñu jëloon àddina sorti ko ay jama ak wurus nit def lola ak di ca tabaxi jakka ngir amup yool wax na ne nga fexé ba kenn nit jaaré ci yow ba bax mo upp lolo ëpp kon nak ñun ñépp mission bi nu am deug moy fexé ba nit ñi rek dimbali ko ci yalla jaaré ko jëntu Yonent sallallahu ak seigne touba waaw xéewal gi dal lolo la manam dal ñun liggéey bi ñi liggéey moy li gën yomb moy ñew leen xewlu sëñ Touba nag moo indi xéewal gi waaye ñëw leen xéewlu dong lan wax waaw loolu nag yomb na Touba xam nga mooy mooy waral Touba xam nga bu màggal jotee nga sëñ bi bisimilah tey nga maa dimbale ñëw añ loolu tubaa rek la am fi lu sëñ tubaa ndax sëñ Touba moom ceebu la ceebu ceebu waaw mooy koo xam ne loo soxla loo soxla ci moom rek lépp lépp lépp lépp lépp jaw fal fara ni lu waraa misal mahari mooy loo soxla ci moom boo ñëwee rek loo soxla lu mu mën di doon rek lu mën di doon ci ak amna ko lu mën di doon lu mën di doon adina ak alakhirah kon motax ñu bëgg àndandoo ñëpp ñu Dakar rek senegal gep la ak rew mepp seulement Dakar prétexte rek la pour mëna def loolu kon limo moy li nga xamné dewrinu Sering daara yi Hizbu Tarqiyyah serigne Atou Diagne mom ci yëg yegam ngir liggéey serigne Touba moko ñaan général des mourid mu jox ko ci ndigal boole ko seigne muntaka ak seigne Mouhamadou bassir mbake mom seigne Abdoul Khadir ñu leen bismillah liggey ba ngok liggéey ba amul seet ñepp ko bok dañ koy wéyale nak ila yu dañ koy wéyale amul arrêté légui li gox bi la way kenn ku ne kenn ku ne war nga fa nga ne budé kër budé liggey kay budé école lu man di doon nga fexé ba kenn jarñu ci sëñ Tuubaa you. ¡Gracias! ne kenn ku nekk yaa ngi wone ñu war a booloo wone moo tax ñu jàpp li ñuy wax journée Cheikh Ahmadou Bamba journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba à Dakar lañ ca njëkk a def mooy centre culturel Diamniadio bee nga xam ne francophonie lañ fa doon dundal. buñ fa jógee exposition bi ngeen di gis ñu doon ko def ci màggal fii lañ koy indi semaine boroom xam-xam yu mag yeeg ñoom sëñ Assane Mbuub yee ngeen di gis ñoom seen Xaadim yëpp ci lañ bokk. ku ñëw ñu xamal la ci sëñ Tuubaa loo xam ne di nga xam ne kii fii la am amul feneen te nag ab naar waxoon na naar bu gore ne ko la in fuqta kulal awliyaa mu wax waxara fa xayrul baraaya fi quronil awaaxir ne ko booy mujjee ñëw tiim ñëpp waruñ la ko ndax yonet bi moom mujj ci yont yi moo waaye moo raw ñëpp kon yow boo mujjee ñëw te raw ku yàlla mës ku mës a liggéeyal yonent bi nee na loolu ñëpp ci war a bég te dafa am fum jaar ak ñom loolu lépp dañ ci waxtaan ci fiñu def ay plateau yu bare bare dinañ ko def ba àddina ba ñu ag fof mom la si wax suñu xaalim démb nee ko boye bo wajal na ndax lu net nañ ci wax ba nit ñi xam ne ki ñu am kenn amu Yeah, yeah, yeah. journée culturelle, cher Ahmadou Bamba, l'antenne hebdomadaire.